damay ñëw ci Mame Ndiaye Mame Ndiaye mooy ñëw ci Netu Sané Séeri Mbay de Fay yaayu Fallou Fay yaayu Sané Sané Franc ci Mame Ndiaye deux cent mille ci Mame Ndiaye Séeri Mbay de Fay trois cent mille tubarkalla masàllaa ci Mame Ndiaye cent mille tubaarkalla macha allah ci maam Ndiaye Seydou Mbengue Fall. cinq cent mille maam Ndiaye moo ko jox jotu saane ci bisu doomam bi ci bisu sëtam bi tubaarkalla macha allah. six cent mille tubaarkalla macha allah ki demul bàyyi jotu ginnaaw. 700000 tubarkalla macha allah ci Serigne Mbaye fay mooy ñëw ci Serigne Mbaye ñu jóg loolu war naa mën a ne. et doomam. teg na di di sëtam di ko taajee ndekki leen ci def ak lii rek war naa mën a ne. bu leen weesoo. caméraman ndey gi daañu dafa joxe téeméeri junni. téeméeri junni yaay ji njëkk a joxe. Ndiaye jàpp Ndiaye. Awa Yombe Ndiaye moo joxe Awa Yombe Ndiaye joxe na téeméeri junni. sëñ Mana tubaarkàlla Seydou Sadio Faye joxe na juróom fukki junni ak jaara or maam Ndiaye yaayam tubaarkàlla macha allah dina baaba. seex bu sa bi joxe na téeméeri junni ak jaara or maam Ndiaye door a yegg si joxe 800000 ak pariru or kon xanaa kon yéen a yor xew bi. waaw léegi nag. waaw xew xew bu ñu ko doy baax. léegi nag lii ma yor fukki junni la ak. wala boobu nga xam ne dana jàppale si moom doom bi jaaw. ñu soog ko jaaree ñu soog ko. daa doon ko daa ko doon ba mu ne sax suuf dama mel ay ñeenti téeméer. jàppale bés bi. ba pare ba ñu ko wax ci la a na jamono mel. yow daa sàngoon dina baaba sër te comme ay seex leen doon woowee fa mu jaare dina lay jaare sët nee moo ko jox sëriñ daaba bi moo ko sàng sëtam tubaarkàlla macha allah. defal li nga toog may naa ni a génn kon loolu yëpp ci moom Amérique noonu France noonu bu ñu demee France it méridien étoile la ñuy dóor dañuy damay dal dalal sama njab te loolu yëpp ci jàpp li may wax ne ay mag a mag rakkam yàquñu ko ay njëkkeem yàquñu ko jatu bëgg ma baat bi yëpp xam na jatu ku gis xewu kinne bii bët ki dem woy aj dina xam ne jafe dafa am problème mu tànk mu dikkoon waaye toogu ci si nappaluwul nappaluwul euh, xippiwul dul nekk ci li ma defaral rek bëgg nga am ndam yàlla bëgg nga am ndam bu tabaski jotee balaa may jëy di jënd xar xaruma ji teg te du yem ci mbooy jëy de dana yónnee ma chéri ndugal du yem ci man de dina ko jox sama jabu jatu mi yomb nii bi fa la teg yomb damay toog rek yombe woo ma ay maam Ndiaye surtout di orange ma ne lii surtout di ñëpp dama ko ko damay na ma lii waa loolu ci lan la bokk lu du baax léegi la ko fekkee woo ko kon xam ne surtout lii moo man la di gën a neex jàpp nga ma daan woo dana leen yàlla fa teg dana leen teg seetlu ndax luy baax rek ko ko waaw waaw sama am ni mbayee la ko mu ñëwee nii sa doom ànd ak moom ñëwee nii nee na xolam fees na dell te feesu xol bu sedd la nee na da lay bàyyee yàlla loolu nag sa njaboot ñaanal la ko nag waa Talla macha allah loolu la ma waxoon ak i bokkam nee na xam na ne bis bu ñëw yaa ko gën man jarul may wax damaa wax ci jot ba xamal ko looy wax xamal ko def ñaaw jee fenn maa xam ni ko ne maa xam ni ko sama kanam bu gisee ne ko sa yaay lan la ma ne ko dara kon it dana ma jox suukaru koor tabaski la même chose maga xaalis ba maga sa orange ma ne ba maga ca lu dafa fekk nag ku aye woon sa tey Sofia moo ay waaye lépp lu ma nar a wax si Sofia nii nii nii ne maga ca yow yéen dafa mel defar ma leen dara mayu ma leen dara dafa mel ni man maa juddu ne ma yenn nen na bi lu ma leen war a defar yéen yéen ëlbatiku di ma ko defar xamu leen sama dara sama dara xamu li si Sophie Diop yëpp ci man ci anniversaire Sophie day toog ba fin du mois wéeru Sophie lii lan mu ne yaay dama Auchan loolu dugg dem duggal Sophie prévu Sophie mu ci saa yi Sophie mu ngeex man ci parfum yi Sophie mu ngeex man ci tissu yi Sophie mu ngeex man ci diisoo waaye naan lépp du kenn sànni bari nga ñaan ndax tout boo gis nga koy waxtaanee ci biir Moustapha bi mu may tuddee doom xam dégg lan ñu dégg ko bu déwénee maa baax docteur waaye li ma ko ne billaay boo posé woon candidat maa baax billaay dinañ dugg biir pale ba pale ba ndax ma di kenn ba maa baax docteur ko bëgg dama leen di ñaanal rek ñaan leen yàlla la fan loolu rek laa leen di ñaan sax li ñu gis Sané boo ko dindi woon mu dañ de koo taxawoon dem fa benn bugoo bi taaw bi loo taaw taaw bu jigéen xamoon nag beneen jigéen dina si toppam de mu ne la sa jëkk jóg mais nga ne ko ay ta ah yow kenn yow sax ba sofi mii tey màgg lu ma sofi di yónnee ci sa loxo bi lay jàpp danga naa yaay ba ma ne la naam sama anniversaire moo sofi loolu tey te tax man sax kii si sofi di ma yónnee yaay waxu si woo Sophie ne ko nangam te saa si moom it mu yónnee mooy li may wax rek li may wax si Sophie yëpp ngi ci yow dafa fekk nag ku aye moo aye waaye nag comme ni ko sa yaay waxee rek seen sëy bi yàlla na lépp loo xam ne mu ngi koy ci séntu rek yàlla na ko suñu borom defal yàlla na ko suñu yaakaar tax yàlla na dund dund dund bu buuf ay sëti sëti sëti sëti sëti sëti sëti macha allah li ma doon xaar da koy doon waaw dama la wax ne la ko ñaan yàlla bu ma tëjee yóbbu ko ndax nee na xamal nga ko tëdd ci yow te yéen a bokk lépp moo tax ne cent mille francs yi dara du génn. xam nga dégg nga xam nga lan la. lii daal maa ngi lay def lii maa ngi lay def ba pare da ngay war a mel noonu. nangu naa ko tey lii di def da ngeen koy jël foofu ndax dina ko dina ko jox ko. dina ko jox ko waaye dina ko jox ko am. léegi lii moo koy indi. jàppale ko ci ndey la. ndax mbéy xale la boo xam ne bii bu ko nekkoon yëm ci saane ak jóg waaye deful loolu deful loolu fu koor jotee fu mu joxee jot xam na mu jot lu ko ñu jox mu seetlu ci waaye day tourné génne sama baax keroog ba yaayam ñëwee ak magam fii di ko làngal bindaaxi li ñu génnee valisu waa Saane waa Ndiobe ñëpp ku ma ci ëppalewul ëppalewul muy xale bu baax muy xale bu am teraanga bu bii ma tere nga la nga nee duma ko def bu taxawaalu dama koy sañ Abdoulaye ma di ko ñaanal yàlla moom tamit yàlla bu ñu séddale dara ci ginnaaw lii mu am a doo yàlla suñu borom bi teg la ko xale bu baax la munoon na ñoom fekk sama diggante ak jatu ah mu am ba li mu nar tey billaay wallaay ba may woo maa ngi toog clinique am mal waaye def ma woo saa maam lii ak lii ak lii laa bëgg a def loolu laa la doon wax bëgg léegi mat na fukki fan munoon na ko tey bañ a fekk su yegsee na ma saa maam ndax xam nga ni kii du joxal sama waa kër tax ma toog fële fii laay toog lu ko waa joxal sama loxo bi lay lay teg waaw kontaan naa trop ci moom ñaar fukki junni yii Thiané Faye moo ko jox mbéy waaw. ndax yow danga ma bàyyi sa jëkkër mu nekk sama docteur ma nekk malade ma nangu laa ma ko malade ndax mooy comprimé yi may faj muy xaalis yàquloo ci dara la mu. ñoo la jox am teel ñaari junni ñaari junni ñeenti junni ñeenti junni ñeenti ndaw solo géwël danga ñu jox dañ la war di jox juróom benn junni juróom benn junni juróom ñetti junni juróom ñetti junni fukki junni nee na fukki junni ak ñaar fukki junni ak ñaar ak ñeent fukki junni ak ñeent fukki junni ak juróom ñoo la jox kenn ku nekk benn